jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di 5M TV Sénégal di fi teewloo xibaar mbokku internet yi la ca gën a fës lu ñeel kon ndaje bi nga xam ni amal nañu ko ci talaata gi fanweeri fan ak benn ci weeru suliet ñoom ñi nga xam ni rek ñoom lañu doon jox nag doon leen neexal jóge rek ci concours général bi ci atum 2024 tax na ilimoonu jëwriñ yi di Ousmane Sonko daal di xamle kon rek jëm ci xalaatam ñeel kon ñenn ñi nga xam ni. daal di nañu bind rek ci réseaux sociaux yi ay kàddu yu ñaaw ay xalaat yu ñaaw nag rawatina yenn ci këru taskatu xibaar yi nga xam ni kon rek ŋàññi na leen bu baax a baax ndax jàpp nañ ni ñoom nag dugal nañ seen loxo ci kàddu yu ñaaw yooyu di ko fësal di ko wane saa su nekk tax na mu ni sax kon moom mi di njiitu gouvernement bi fi mu nekk nii danañ def seen kéemtalaay kàttan danañ def itam la mën ngir xeex nag mbir yu ñaaw yi nga xam ni yenn ci këru taskatu xibaar yi ñoom seen loxo dugg na ci mu ni loolee kon nañ ko xam bu baax a baax ni matuwaay yépp kon danañ ko ci rek jël bu ko defee yenn laaj yi wala yenn wax yu ñaaw yi kon duñu ko nangu benn yoon ñu koy fësal ba suñu njaboot yi rekk di ci jot Omar Sow di sàkku njéggal waaye itam di jéggal ñëpp nag ginnaaw deltu ginnaaw bi nga xam ni def na ko nag jamono ji ci wàllu politique la ko waral bokk na ci mun yi munu ko wax ci kaw benn yoon rek ñu daal di koy dégg waaye nag la mu xam la te itam lu bokk ci moom la maanaam sore moo waral kon lu nu mel mu teggi tànkam ñeel wàllu langue politique bi nag mu ni kon ma ngay delloo njukkal waaye itam am rek kóolute ci ñi nga xam ni rek ñoom ñoo nekkoon ca ginnaawam doon ànd ak ñoom mag leen di xalaat saa su nekkoon jox leen dik dajee ci bés yi di ñëw rek laata kon muy soobuwaat ci mbir mi ndax mu ni ma ngi ca yeneen mbir yoo xam ni mënu cee wax benn yoon.